mu ngi nii ah site baa ngi nii quoi tu vois kii Maam Diallo moo nekk na le gisoo gars yi ñuy commencé tabax ñu ngi commencé tabax site nii quoi gis gars yi ñuy commencé tabax tu mu ngi nii gars yi ñuy commencé tabax nii